waaw gannaaw buñ ñu jógee ko rek si Short uh, Music Break boobu noonu rek uh, ñu dalal ki nga xamante ne moom mooy suñ benn bés bi uh, comme ni nga xamante ne noonu lañ leen ko junjale woon rek balaa ñoo dem si Music Break bi ne tey suñu gani bés bi ki nga xamante ne moom mooy kenn du ko natable si biir réew mi ñu gën koo xamee si Momodou Sabally ñu bàyyi ko rek mu nuyoo gannaaw nuyoo bi rek ñu xuus waxtaan si ki nga xamante ne moom mooy li ñu fas yéene waxtaanee tey Mr Sabally jërëjëf dalal jàmm si programme bi. jërëjëf and thank you for having me uh, bég naa pour ñëw si studio bi waxtaan ak askan bi si xew-xew yi am si réew mi right now mbe la moy laal be kontaan na en somandara ka tandi kontanta pour kana pour ni moole kaca Baraka Baake kontondiroo ko laa doroŋ gannaaw bi nga xamante ne moom mooy nuyoo bi Mr mm-hmm. euh, Sabally tey ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ne moom mooy wàllum koppar euh, di li nga xamante ne moom mooy ñu gën koo xamee si ECO bi mm-hmm. euh, di koppar bi nga xamante ne réew yi nga xamante ne ñoom ñoo fasante ko nekk si tundi Afrique sow janta koppar bi nga xamante ne loolu lañ fas yéene rek pour booka boole mu nekk benn Euh, gëstu yi wane nañ ne ñii ñu ne am na li nga xamante ne moom mooy nasaxtaange bi nga xamante ne mun na koo aseel koom-koom yi réew yi nga xamante ne ñoom ñoo amee koom-koom yu mag euh, ñu ko wax économie waaye am na tamit ñi nga xamante ne gis nañ ne euh, mun naa yóbbu tamit li nga xamante ne moom réew yi nga xam seen koom-koom bi dafa nasax jëm kanam waaye bara ñuy dugg rek si li nga xam ne loolu mooy gëstu bi lu ñu wane nga nekk nit ki nga xamante ne saaf nga si li nga xamante ne moom mooy director bi nga xamante ne moom mooy finance ah, sa xam-xam yaatu trop si wàllum économie ah, yow sa gis-gis rek Gambia suñ li nga xamante ne moom mooy taxawaay si wàllum éco bi bara ñu si koom-koomi Gambia si ah, éco bi du lu ees lu yàgg la foog naa ne mut na almost thirty years bu ECOWAS sub-region bi dooree di waxtaan yëf yi pour ECOWAS yëpp am benn xaalis man liggéey naa si. because bokkoon naa si ECOWAS seen euh, admin and finance committee ñu dee approve euh, budget ECOWAS bi mu nekkoon central bank tam represent naa Gambia si task force bu waroon a defar di road map for a common currency for West Africa demoon nañ Abuja for a retreat almost a week so yala may na si tuuti xam-xam attend na summit yu bari on this euh, current common currency bi ECO waaye man suma gis-gis daal man sawaruma si parce que after all these years di joxe deadline nga forma nga joxe forma man dama gëm ne ECOWAS serious suñ man dama gom ne 2020 ECOWAS du ñu amee common currency te su dee am naa yoon pour aida nguur gi nañ buñ si buñ si xiir daal nañ jël seen time su ma doon uh, Adama Barrow sax damaa wax gaay ne ñun Gambia réew mu daw la ñun nañ xaarangum ñu seet soo leen dooree ba pale suñ xel su dalee ju bokka si waaye suñu nguur gi am nga Gambia nag ñun ñooy neex a yóbbuwaale agreement bu ñëw si aduna bi Gambia ñooy njëkk a sign nangutoo bu ñëw si tunda bi Gambia ñooy njëkk a duga ñu defee loolu ndam te loolu ndam even America bi nga xam ne sax is the biggest about the biggest economy in the world the most uh, the strongest in terms of military and political power nekkut ne nangutooy yëpp lañ dee nangu nekkut ne nangu nangutooy yëpp lañ dee jóg rek duga si this international uh, criminal court thing ba tey America nangu ñoo sign agreement bi so a dal <laughs> na ma yàlla baaral wax bi ñaaw na waaye dogiti réew lañ so nañ dal si nit ñi di xir seen xir ñun nañ ànd ak daal seet lan moo ñoo jikk à ce country ñu def loolu waaye di jóg rek lu nekk la tub duga si man ànduma si nañ bàyyi suñ xel yëfi éco bii maa ngi aida nguur gi nañ bàyyi seen xel trop buñ jékki-jékki bàyyi suñ dala si bi leen duga si loo xam ne kenn xamut ko bee geen gi ñëw lor lor askan bi su suma advice mooy ne nañ bàyyi xel si yëfi éco bii man Modou Sabally am not impressed am not optimistic toog seetaan su dutoon seen oote bi sax lii du ma si dee nangoo waxtaan because ECOWAS they are not serious ECOWAS euh, comme bi léegi rek si wàlla boobu noonu ñu gis ne euh, suñ xoolee fifteen member states la maanaam euh, li nga xamante ne moom mooy fukk ak juróomi réew hmm. si loolu noonu juróom-ñetti réew yi yëpp ñoom ñu ngi am benn xaalis bi nga xamante ne ñu ngi ko sukkandiku li nga xam ne moom mooy CFA kon ndax waruñoo mun a rafet njorte ne war ta mun a nekk lu métti. waaw gis nga nag if I may use a pandering by word loolu mooy alikala bi dis uh, juróom-ñetti réew yi nga xam ne ñoom dañ am seen xaalis ba pare yow foog nga ne ñooñu dinañ bàyyi xam nga xam nga lan mooy CFA mm-hmm. CFA dafa uteeg dalasi de dalasi ñun suñ central bank moo ko garanti use sénégalais woow ñun ñoo ko géré waaye CFA bi di French treasury ñoo ko garanti CFA bi is peg dañ ko takka si euro bi nga xam ne CFA it's very difficult pour CFA bàyyi yoon wara mu isil la si réew yi nga xam ne ñoom ñoo ko jëfandikoo tubaab yi ñoo ko contrôle te yoo xam nga ne euh, Sénégal Ivory Coast Mali ñoom nga wax leen xaalis bi nga xam ne France moo ko garanti ngeen nekka si loolu ak xaalis bi nga xam ne Nigeria ak Ghana ñoo ko garanti ngeen bokka si loolu ban la gaay bi jël buñ buñ naxante wax naa ne lii dama si liggéey lii dama si am lot of information bi nga xam ne sax du ma ñeme ñoo wax yëpp si media bi ñun toog nañ ak experts si jógee Sénégal and other French countries bu ñoo defal this road map for a common currency in 2018 Abuja bu ñu demee ba si yow eight countries ñu ngi amee common currency ñun uh, anglophone yi mooy Gambia Ghana Sierra Leone Liberia ñun amuñ so pour ñu amee common currency for the whole of ECOWAS comme foog French countries yi ñu nekk CFA bàyyi CFA ñu ñëw bokk si common currency bi te loolu one of the conditions bu ñu defoon ak technicians mooy ne di CFA dañ ko peg to the to the so soo waree ñëw to a common currency foog nga génne am duñ da peg nga float ko balaa ngaa ñëw foofu dañ ñu ko wax plain ñoom duñ def loolu waaw waaye euh, léegi nii ñu gis réew mu mel ni France. waaw mu mel ni mu ngee support li nga xamante ne moom mooy. fan fan nga ko déggee. Euh, suñ xoolee li nga xamante ne moom mooy. gëstu non fan ko déggee. Euh, recent meeting bi nga xamante ne moom moo am si Nigeria. man dégguma ko fen ah. no it's news to me. No. Uh, so in fact, no, no, no, I don't believe it. No. Unless the Indian man newspaper or a no, document. Sun whole statement being a hamantene, you uh, couldn't work for Fununu. Wow. When you had the deadline of uh, this time around, Rafet Nenjohan 2020, wow. uh, uh France, Lolo. No, I couldn't work my Nigerian president. Nigerian president, my wahal France. Bill, what's the wahanto? No, why you know what boy waxantu ngay wax de <laughs> am na ku fi waxoon ne accept na élection mu jékki-jékki ne cancel na result bi suñ dëkk bi fii. loolu du waxantu. Eh, but that's at national level loolu loolu si biir. loolu no but I mean he is a president. national level boobu moo ko jox daal autorité pour mu wax loolu. yëpp yi waxantu moom tegee ko boor because su ma si xuusee sax sa topic bi mooy change. now li maa wax may France seen interest la pour West African country euh, French West Africa ñu maintain CFA franc bi France duñ mus di encourage or even accept. pour ñooñu bàyyi loolu amuñ si doole nag si ñuy buggee dem dañoo dem waaye dinañ leen bunduxatal si économie bunduxatal boo xam ne réew yooyu yëpp seen économie dafa ton ton upside down euh, nga nekk ak expert bi nga xamante ne am nga xam-xam bu yaatu si wàllum économie. lan mooy sa gis-gis si li nga xamante moom mooy suñ move into euh, mhm. euh, bi. nga xamante ne def nañ ko euh, ñoo jënd diggante réew yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si bi nga xamante ne def nañ ko. léegi nii foogaloo ne ñun ñëpp suñ amee common currency. Mhm. gestu li nga xamante ne moom mooy di ko yu nekk si eurozone bi around seventy percent ñoom ñooy li nga xamante ne moom mooy seen intratrade bi mooy ah. jënd bu ñuy jënd ñoomi neen suñ policy asian countries yi is around sixty percent kaay ma kaay ma wala leena rek Europe ak Africa dafa Asia ak Africa dafa utee so lu jig Europe ak Asia jigutuñu te loolu mooy problème suñ technicians yi ak suñ politicians yu nekk si yëfi common currency bi dañ gis nga gis ECOWAS model for a common currency dañ copy rek tubaab yi lu ñoo def ñu isi ko fine nga ne suñ trade is limited suñ amee common currency trade war naa yokku in theory loolu mën am waaye loolu su amee Europe that doesn't mean na am fii because there are things suñ doo ooyee economic structural rigidities nga am current currency uh, waa kiyam because dañ na sax duñ dee nangoo liggéey liggéey bu bëri uh, tool yi ñoo béy di seen tool la gerte boobu la ñoo export for instance to West Africa soo change currency loolu tax gerte boobu yokku lii lañ dee ooyee structural rigidity ak yeneen yoon yi baaxuñ communication mu ngi nekk problème so there is no guarantee ne soo amee single currency in West Africa trade na yokku yekkute bi nga xam ne dina méngoo lu xew Europe ak Asia lii mooy suñ problème suñ technicians yi especially bii sax naa si génnee politicians yi ñuy technicians yi ñoo day créer these problems nga dem nga war a jàng university nga isi xam-xam bu ees doo def loolu da ngaa dem seeti lu keneen binda nga copy copy paste ko nga ne am nga thesis am nga PhD nga ñëw di lor askan bi fii it doesn't make sense Ah, balaa ñoo bàyyi Adja Binta rek mu ñëw euh, ñu gis ne li nga xamante ne moom mooy deadline si euh, taxawal nañ ko gestu boobu te xalaat nañ ko waxee ko noonu. li <laughs> li dama am a lot of experience. <laughs> fii Gambia fii was 2005 I think just before ma dem defi. 2003 2005 ñun gestu buñ def ko taxal taxalaat ko taxalaat ko ñu jékki-jékki ne 2020 lu tax ñun Gambia ñu war a lu ne loolu am maa ngi remember Yaya Jammeh in heads of state ñoo ñëw this summit fii. def leen wax ne ok lii deadline bi dinañ ko postpone waaye this is the last time buñ ko postpone soo leen ko defatee rek ñun dañ see génn loolu la wax gars te kilifa bu am fayda noonu nga war a waxee West Africa daal man gis nga suñu waxoon 2025 sax ma gëm leen tuuti waaye 2020 barki démboo xaw ma gannaaw éleg fii it's not gonna happen am telling you January it's a uh, joke it's a uh, joke kaay ma wax la there's only way nu moo xapu ne gars yi jékki-jékki ñëw Sénégal Macky Sall welcome leen hôtel euh, daka laa seen hôtel bu famous bi tudda si sax King Fahad hôtel Méridien gars yi ñëw foofu ñu isi benn ñu draw benn xaalis comme Trust Bank ak yooyu nu ñu ko dee defee pour su check ñu prison benn bu mag rek binda fa rek xen xanaa loolu de te loolu most likely suñu bañee gàcce dinañ ko def dinañ dem ñu draw benn xaalis ñu ñëw ñu def ko si télé bi kii yanka yeeg sarakulee because xamuñ yëfi xaalis suñ gisee bi ñëw na Ah, li li dinañu liit si eh, li nga xamante ne moom mooy indicateur si ah, waaw balaa ñu dugg si boobu ah, ñu bàyyi Adja Binta mu laajte la ay laajte yi nga xamante ne ba léegi moom yooyu ñoo ko soxal rek si waxtaan bi. ntivi ñinin kaala min si kaw siye ñinin kaa ba nin lafta yaafu manika konto isa manika kambo lafa yaam nga jëli lafa lafa ka koren si kuto dundi as yasin koren si manke manika konto ok ko di kuto woto ba ñam iwa ka ñam andu nga jëli lafa ka fay bo dunde 2020 andu nga jëli gambe banko mi yal amami ñi ñi sangu ko no le ko di kuto den sa mbi ñinin kaala te ñinin mi ro eh, ko do la ko ala ko ngam men fo kaw siye ñing Uh, eh, min be ñin kuwo ñaton kaya kan na, na président wal men be ECOWAS mm. iman sobe ya alama ala yeto ñen na alfa lem bari iman sobe ya ñin kuwo kawsu ye date sol faja e nana ya announce ay kawsu date sol dinna one by one 2003 ah, e kombe ko dikuto soro la ECOWAS a manke 2005 ya announce a manke na fotanke 2010 ya announce a manke final one was 2014 2014 a manke so mun ne da tinna momi ya lon ko e hakkilo timmata e manke kiyanko tolewoti e manke sarahuloti iɓe sonna ko mbe kadi jumala kono augost septembre octobre novembre décembre kadi luluñato e fawas ɓe kodi kuto sota kodi kiling wo manque kumati meyalon ko kuma soɓe len menu ɓe o kumo foka e manque mo soɓeyeti moma ñanni lamoylera gam men lafa jeeyi pour mol sa moy aye koyi gam mbiyaman sakunda mbe yamarla menna i kana ɗum ñin kuwoto because nde ngaddoku jamare ke ñin kuwoto as a technical committee member for the road map for the currency for west africa 2008 nigeria lenga road map o be deɗa kabrin sita ntolla ntolla economy sol men dota anglophone west africa nin mm. french country sol la economy sol sita bum kono mais alon ko men ka fowoto hani président ngol fangota be moy la ko sita fanfintila media e ntol ngam men korosi kuwo kono walem nin uh, west africa bankol pour yena kafu anglophone kan mbe denga kodi kiling soto fodi subregion munatin na yo sinfata walem ko itol e la kodo sefa wala garanti tan tol tol ning anglophone countries wala kodo ti because itol e french treasury france man sakunda wala tol fasa adira kodo ya sakini euro la ani ya sakini euro la men na walem pour ñiŋ maakaŋol ma maŋol ka ke kodoo la kuwoto international foreign exchange market a kaani batandi aɗum tol ngalo ne kon tol fatasiŋol damma damma laata tubabol le ka tambin faŋol ti sonte mune batina momi ye a ko koye hakkilo timmata iɓe sonna ko ñin west africa uh, france kan fo la bankol iɓe la sefa tula jere ye naantol anglophone kan ga denga kodi kilin soto nte ko ñin te kelano nto na tara ya, ya, ya loola faŋ ya janfandi mais i ko sanji lulu ñato ase ke no ga soŋala da ka fo ko januwari ñimɓe sotola nte ko ate sotola mbennama safunda ya marla e kana kidi kabbula ñin kono koye dalta men na agreement wo agreement nata duniya gambiyale folo ka wuli ka a jeeyi aɗum tolla banque mum banque ndin ndin ndin ndin nati mi tata nigeria ma fon lamal local government area fango si n tolle ñantan hakkilo tula ka tabbi banque wo banque la so yinkuwol dal gata ñin hakkilura nin adama baroɗo lamoy lanama teɓe min fola e aya ah, foyo ko a ah, ntol de gambien tol mu bankundinneti mbatugal lo folo ngal yiiɓe naal dumta kono nigaji ko kuwo ñatotaɓe je tol sina aɗum min men ɓe dow kola international community in ñanta sonna wolale because mbiyenna population je the size of our economy the fact that mbi takan transition ole kono political crisis leɓe ñing banko kam même sontamin mansogo leɓe jee social crisis leɓe ñing banko kan alama alama ala addanna ñinna because ñing protest min keta ñing na probléme ol siyata bakele right now pour kana ka ɗum me yalon kaɓe economic problème somalanan banko to mañanna sonnala ntenma um, man any possibility je pour west africa e common currency soto in 2020 so gambia nga si nga ñun jiiɓe ngana kodi nga duñjee ha bari uh, fo sayan ɗo ga jele ko a uh, komi a fo ñami a ni a jiɓe uh, bankol mi yalon ko wole engrais kamin fo ko eurozone wole mm -hmm. wole bankol mi yalon ko wole ko euro use yes. a jiɓe safarol wo bankol tema mm -hmm. uh, mune wo safarol karola aɓe faramansari mm -hmm. wolom itol mume ika kodi kilinda use mm mm-hmm. -hmm. uh, an ɗon kiskisiro e mi yitandi wolom uh, keme o keme mm -hmm. fo mi yalon ko wolom tan uh, dulu uh, wala tan Ah, mhm. kata tan worowo la e kaw o safaro ke dammawol tema mhm. ah, ni a jiiɓe bankol mi yallon ko wole ɓe ko bankol mi yallon ko wole ɓe asia mi a jiiɓi mhm. atata fof ceme ah, ceme e, ni ni ɓiɓe min bondiraji wolom tan worote baren tolla jamma fangola wolom africa safaro la karola dammawol ka safaro min keñola atata fof mi yallon ko wolom tannin lulo kata fo tannin worowola so ila wo min karo fana kummayata baake because uh, ni ye ba fola ko uh, nga kodo falin be den kodo la amanke ko kodo la ñiña dammala tinna pour ka wo falin e i solata men na je jikkomu men ti je wolen ko bawo ni koy dita sénégal say e wafiro la foy se dala so falin ay e ke sefati ni be murana ya falin ko tan ke dala soti mm. so mirago ko nim be dinta ko di kilinna abe o batal anin sotarol bondi la jele pour safaro se yiriwa bari ngam men foy e sur a kanto wolen ko uh, ah, menyeji rotnin asia wati amantul wati ila economy ila bankol be lori nyamen anin ta aman killing ka fo ko kodi killing so hod rong tundola sabri jonoto wodamma damma ta tinnalono safaro ye yiriwa wasna exemple men dila kiyankol me yalon koy buka son do ko wala ina ina fatale kiyankol natara kunkutan ne be bolo i e ka wale doku i e ka kasu wale doku je ka tun ala idin tawata fanan sa en bake yela tiyo ti tiyo ti yela dula be ka kasuwati natara kunkutan ne be bolo kasuwati ka wa export nin kodi kuto nata wo kodi kuto wota tinnala no i safaro nin bantala bankol tema ay lafa lafa ñala men ni europe nin asia tabe uh, eh, kañanna mo natinna because ne be sigiyankoli man sawar pour ka doko yiriwandi bake maybe fanan silol men ya lonko walla ka safaro sono e yandi air freight air travel communication generally walla infra europe nin asia la infrastructure nin taman killing so meje europe nin asia wati amantol wati so ntol la karannal ntol technician ol ntol lemol batandi ni ko ngata karang instead of ngata nga research ke nga londi kuto samanang ngata mo tubabo le safero men ke ngawta nka ko pinka pes nka foko wole na londoti so walati nan kana nka foko tubabo le nin kala bete yata nin fana yaka bete yata eko yiriɗo nin fantama mulunta e, e, e, e domo ñamankele ndeɓe ko kaari nin tuloome si continuo se si ok nin tuloye si continuo te sira tol nin tubabol nin esionol la kuwo man kelin ma fo ko kodi kuto a kana na bat nake siloo la silola ŋakkumol fo mool ye meya lonko a momeya lonko e hakkilo timmata isa moyno because nin kuwo research jamala keta je jos jañimɓinan tata kotenkere pour ka jiiɓe research me alon ko gañum kacan kacanne euh, things like euh, ka fami optimum currency area mm-hmm. euh, ni o théorie jiiɓe ye evidence jiiɓe in terms of empirical evidence mo jamali research ya tandi ko ecowas is not an optimum currency area aɗum in economics optimum currency area wolle ñanta kodi kilin sohla e dengala ni nata other issues ka fami asymmetry of shocks nigeria la safaroɓe sujirin munala tulo mm -hmm. oil Gambia la safaro be sujiri munela uh, tiyo so exactly so ning shokketa economy to iɗen najiɓe tade dala ñamen anin gambia ta e bade dala ñame te kala kilinti so natawi monetary policy soto mais alon ko single monetary policy len uh, malaria ɓeetela pneumonia ɓe ñin dola nte komɓe prastamol let komɓe hamneva quin le la ngal ɓe jarala na yete watata ñin do watila so e fana ɓenna probléme ol to fana in west soto nin probléme o si, si économique probléme sotota ka foma e shocks sob region o to pour ka jara aɓe koleyala aɗum no, normally aɗa wala nan ko gambia ente hakkilo tuɗa ni exogenous tubaɓo ka foma exogenous endogenous shock naketa nay in terms of oil woye nigeria soto ntolga shock soto in groundnut and single monetary policy lem nin mitingo keta décision ñanta tala uh, problème olu be économique aɓe jarala ñaame ya mira fo nigeria o décision ota fo gambia le sembo ɓe warala ƴee so ngan hakkilo to ma fo kon dakanaki je bari ngan hakkilo to nkana podi nga dunku kono me ya lonko soma asinan batani fo sain ni nga jibe mi ya lonko fana wole keta uh, mi bari liyaji ah, ɓe mm-hmm. greece e ah, tolla ah, fonkola karola mm-hmm. among bamba mbake so bare ka brin i boyta mm-hmm. ye makoyle andum bankol mi yallon ko wala ye makoye wolon bankol mi yallon ya ya ya allun na fayi da ke europe nyame wala fango ye boyindi economics alu kata bakel de i am telling you because men keta one of the things min kuwol kamen samana ni aje e, e, e, ye, ye, ye sartol le londi pour ñing ko di kuto ena ka fo convergence criteria uh, banku iɓe koɗomin dontoranoyla central bank bulu pour ka budget o makoy a mañanna tambila 10 percent la last time na wala cek ah, inflation mañanna tambila 5 percent la so wo sarto niyaji yekeje e kala file banko bele tembe in terms of economic stability jannin kamɓe ngoɓe kela kata into e eh, an economic uh, and monetary union so yaade o sifalle grisñol batandi because tubabol man son pour ye dontoroke pour yela économie ñin deɗa where Patanjali actually amemaakoi so Gambia ja right now almost we have a drought molɓe campaign kam pour tourisol kana na uh, chief foreign exchange earners agriculture uh, mainly tourism so Gambia most likely ɓe foreign exchange problem sotola December kata 2020 so budget o most likely uh, ku jaman le ɓe duuma tubaabol IMF iman kontaan na ministry of finance ɓe na economy tamandi kan ñaamen yalon ayame fana kana fiki ake e kal kumbol men fo banta ani membe konote buka kilen to ngalo membe keri nyimbanko kan ngalo membe membe tama kan IMF ngalo membe tama World Bank IMF most likely nyanta mako lo men dila Gambia la budget karola most likely ate sotola this year ni mawso fo man sakunda setay don toro central bank pour ka budget ning ka ka ka, ka supplement ni koy be ni common currency la requirements satisfy la e koy be i kana tara dayile male kono so nte dawa nte be men fola gambia ñun ya ken tol man pare folo ah, yes ca aka munta control man pare folo bari mm-hmm. sa ah, mm-hmm. mi ya jibe a startol mi yalon ko yole bi atata fo starte tan a bari starte nani ñilu kono mi yalon ko kelin malon a ite la fahamul to a fontul mi yalon ko tolla inflation rate e ko manyan na do yalla min tambita ah, ceme wo ceme saba wala 3% ninnaɗo fana ah, ah, ah, mi ya lon ko wolom jorola karola walla dontorola karola aman ñanna ka tambi mi ya lon ko wolom det to mi ya lon ko wolom gdp ratio ama ñanna ka tambi mi ya lon ko wolom 60 percent la comme mi yalon ko wolo ministre mi yalon ko wolo ɓe ñin tundol to yallande ñaami mm-hmm. itela karola a yaaje bankola fankola karola anum mi yalon ko wolom angalle kamin fo ko réalitis wolom toñal mi mm-hmm. yalon ko so wole a ni gañino soto so ase an se ɗum no walan the reality ngalon yim banque dol fanan yo probléme soro sénégal is doing quite well in terms of uh, uh, uh vital statistics they are but until right now until the economy man stable inflation is high debt rate is high uh, ngam men foye asake no man sakunda don toro lafa this year because of nying drought meng alama alaya atala because aketale already alama alaya mantoro tala ñing uh, diamo men be kerin jang ñin 3 years jotna wol be be batandi la this is the reality am man sakunda man nanya si la fo wato e si ina wuli ya fo ko be problem or solve la uh, right now manan ko tuba wol king kala for tourism ni be la moy kanna aseke no dol bijetina so these are all issues so gambia right now ntoltenyi abin yaje Greece ñol ni Portugal ñol ni Spain ñol ni ndax problème en côté EU aussi fallem ni la economy mam bambang ila convergence criteria they not very strong ibulata ñun noma inata problème o soto ko problème o solve la because agreement leng ite allow la pour certain steps na so so these are the complications and all the more why I think inflation is higher than the target Gambia jam. So why should we even Uh, but ni ajibe fanan uh, inflation be la fala ya fare damen tan jani december be la fala ya safira daire to december yan kuma dijam inshallah ha uh, yes. Uh, Mr Savali waxtaan bi ak gën am solo ñu continuer rek fi nga xamante ne foofu lañ ko tënkoon si mm-hmm. kàllaamay wolof mm-hmm. ñu gis ne li nga xamante ne moom mooy sarta yi mm-hmm. teral nañ leen réew yi gestu ñun buñ def wane na ne euh, réew yi nga xamante ne ñoom ñooy fukki réew ak juróom yi mm-hmm. euh, benn matalagut mm-hmm. euh, waaye am na réew yi nga xamante ne rafet nañ jotane nañ matal mm-hmm. ah, fii balaa décembre yu mel réew yu mel ni Ghana yu mel réew yu mel ni Nigeria réew yu mel ni fi nga xamante ne moom mooy Sénégal réew yu mel ni Benin rafet nañ jorta ne dinañ matal ah, yow sa gestu ah, màcc na trop si wàllum li nga xamante ne moom mooy koppar ndax ñun li nga xamante ne moom mooy réewi Gambia dinañ matal li nga xamante ne moom mooy lu ñoo wax inflation rate lu gën a néew euh, li nga xamante ne moom mooy 3 percent war koo weesu euh, li nga xamante ne moom mooy debt ratio bi warut a passé li nga xamante ne moom mooy 60 percent. Euh, du yooyu rek am na yeneen yu fa nekk. Hmm. budget deficit excluding grants ak yooyu ñun suñu économie right now lu mel. am naa ne gars yi door nañ di manipulate figures yi cause change nañ GDP numbers yeeg yooyu beneen waxtaan yi boppam la. waaye as far as I know Gambia meeting criteria yi right now motali wuñ ko by December duñ ko motali because like one of some of these critical areas like inflation ak uh, budget deficit to GDP ratio loolu uh, meeting ko right now te by December dafaa gën a dafaa a bon because wax na inflation na yokku before December budget deficit most likely na yokku before December te beyond that moo tax ma ne la ñun suñu gars yi gars yi wax lii suñ président yi West Africa yi sérieux suñ because yëfi convergence criteria soo soo gisee ñu isi ko as a condition for a common currency dafa mel ni garab la pour saafaral euh, feebar yu nekk si économie bi pour nga xam ne pour ñu xaar ba feebar yëpp wér nañ nit ki taxaw économie bi taxaw comme nit mu am kattan bi pour mu dugga si loolu so loolu in a normal economic management environment doo ko motali tey rek ñu ne la élève dugal si union dañoo dañ ko war a motali ay ay ati ati at balaa ngeen a duga into a common currency daa xam ne li nga feebar rek ma jox la Nevaquin ah, xëy na fever bi wàññeeku na yaram bi sedda na waaye virus ba am fa nga ne dangaa dem play nawetaan Serekunda is yow di nga mën a scoogul foofu waaye 2014 moo nekkoon sarta boobu yëpp 2014 ba 2020 loolu juróom-benni at la. dañ ko dañ ko dañ ko mitoon at that time mituñ ko moo tax union bi amut so ololo ñu koo mis so léegi dañ ne ok comme que ñu ngi koo mis di mis léegi nañ def benn yoon rek su ko ñëpp misee misee benn yoon ñu dugga si bàyyil ma xel Sénégal Ivory Coast ak Mali ñooñu tubaab lañ du nit ku ñuul gars yi duñ dugga si lii am telling you Ah, fàttali leen nekk ñekk di wax ak mooy Mr Mamadou Sabally ah, Mamadou Sabally mu nekk ki nga xamante ne moom mooy ku xam-xam moom màcca ah, si li nga xamante ne moom mooy wàllum koom-koom ak nga xamante ne moom mooy wàllum koppar ñuy waxtaan ak moom si li nga xamante ne moom mooy wàllum euro bi léegi nag ñu dellu si waat si éco bi waaw mel ni yaa ngi yaa ngi expect money transfer tey <laughs> dinaa la gaafa after ñu ñu ñu léegi di waxtaan si li nga xamante ne moom mooy suñu dellu si waat si biir réew mi xool li nga xam ne moom mooy suñu koppar bu yàggul dara ah, gis nañ réewi Gambia ñu ah, li nga xamante ne moom mooy koppar bu ees ah, ndax lii nii yow sa gastu si wàllum xam-xam lan la ñu mën a jural ndax dina gën a yóbbu économie bi si kanam ndax ñu mën a delloo gannaaw balaa ñoo dugg si wàllu mbool. loolu moom yóbbuwul économie bi fenn dafa mel ni nga am mbuba bu màgget rek wécci ko sol bu ees loolu yokkul dara sa wér gi yaram waaw su see yokka tuuti daal mooy xëj na yaakaar bi because uh, uh, lenn rek laa see mun a wa yëfi counterfeit an loolu mënuma garantie ne gars yi mit nañ all di cause xam nañ ne xaalis bu nekk even dollar dañ ko dee counterfeit waaye ñun suñ bos lañ gën a yàpp nag suñ dëkkandoor yi ñëw toog suñ biir yéen xam ngeen seen rabaraba yi fii <laughs> you understand so dañ dee counterfeit soo xaalis yi soo ko changé nga improve security features yi loolu na la dimbalee pour mu gën a naxari pour counterfeit ko you know yooyu ak uh, uh, durability of the currency because gis nañ ne especially fifty dalasi beeg yooyu soo ko téye one two days rek affaire si dem yoonam so si lu yi wax because lu ñu wax rek laa mun a gis currency bi foog ñu test ko seet ndax génn na bële sax because design bi moom definitely xaalis bi dafa gën a ñaaw waaw apart from bi ñu fa génnee nga xam ne ñu majorité bu kuñ faa gis boppa boobu design bi I think they could have done better even Marie Jobarteh nga xam ne du ma dee ànd ak xalaatam yi this time àndaan ak moom ne design yi xaalis bi waroon naa mun a gën a rafet waroon naa gën lii. waaw wante uh, comme noo ko waxee si li nga xamante ne moom mooy wàllum kaaraange bi security features. Mm-hmm. <coughs> yow sa gëstu wala sa gis-gis uh, mm-hmm. naka nga ko gisee. non man du ma expert si loolu. you so loolu xëy na nit ki nga xam ne jàng na yëfi physical aspect of a currency waaye li ma si wax mooy governor bi wax na ne dañ uh, bàyyi nañ xel trop si yëfi security features yi bi ñoo defar xaalis bi so awma any reason pour weddi ko. so waaye maa waree tubaab bi lu di proof of the pudding is in the eating so nañ seet xaalis bi naka la naka la moo uh, fair si économie bi in the next one year or so pour ñu mën a assess ndax lim ñu si wax moo si nekk waaye right now awma any reason pour wéedi lim wax so ñu rafet si njorta rek ne xaalis bi has better security features maybe the durability will be better until time proves them otherwise waaw ba léegi euh, ñu xoolaat li nga xamante ne moom mooy si wàllum koom-koom bi euh, bu yàggut dégg nañ ki nga xamante ne moom mooy président bi gannaaw bu mu jógee ko fi nga xamante ne moom mooy ndaje euh, ñu dajee si bi nga xamante ne moom mooy si airport bi mu ne bokk na si li nga xamante ne koppar yi nga xamante ne moom mooy luñ diggoon Gambia si fi nga xamante ne moom mooy di EU pledge mooy réew yu tugal yi digge bi nga xamante ne defoon nañ ko réew mi balaa moom muy wax dégg ne director of press mu ne lu ëpp si xaalis boobu jot nañ ko moom mu ñëw wax mu ne soo gisee ñu jot xaalis boobu te mënut a feeñ si askan bi bor yi nga xamante ne laboon nañ ko yéen seen jamono nguur loolu moo bari ci bor yooyu lañ nekk di fay waaye ba léegi ñu ngi gis nguur a ngeen lekk gan nga gisee ñaar yooyu noonu. président moo wax wax boobu. ah moom moo ko wax si nga ah, li nga xamante ne moom mooy si télévision bi si airport bi. subhanallah al azim tubaab dina la may xaalis nga jël xaalis boobu di ko dem fayee bor. ñu ne loolu leen leboon moo bari. man de maa maa ngi ko soog a dégg tey di fact is xaalis boobu ñëwut. pledge mën ngeen a dem si Sadio Brito su jaar Diadi nangoo mu jox leen euh, footage bi interview bi mu def ak moom biñ jox annoncé pledge ma ne Sadio Brito ma ne ko bi pledge du mus di ñëw Gambia fii man maa ko wax te loolu moo xew soo cegee euh, euh, macroeconomic statistics lu ñëw suñ dimbal Gambia 2018 dafa wàññeeku 2017 moo ko ëppa te 2018 mooy the beginning of the implementation of the national development plan so nguur gi gis nga nii la nguur gi de def di dugal seen bopp si problème nguur gi maa ngi maa ngi ŋaaña the office of the directorate of public relations and press and state house nekkuñ di def seen liggéey te seen liggéey la ñoom ñooy information minister pour jokkoo ak kan bi wax leen digga bi because lu xew and these are some of the problems we are facing bi ñu waxee ne <laughs> EU benn seen benn commissioner moo fi ñëw ak plane that's one baro dem ñëw gars dem welcome ko nit ñi ki yanka yi saraxule yi foog ne Barrow one point seven four billion bi sax daf ko dugal si plane bi isi ko so nit ñi nit ñi gisuñu any changes so where is the su dee lu ñu wax dëgg la xaalis bi ñëw na where is it ah gis nañ implementation ban implementation ah, wax ma benn ban bridge bridge bi nga xam ne xaalis bu loolu Chinese grant la bokkut si lii fixed China dañ dem Belgium pour pledge fa dara waa ji nañ waxante dëgg xaalis bi ñëwut and you it's better for the government ñu wax nit ñi dégg ne xaalis bi ñëwut nit ñi yërëm leen gën am patience dañ wax ne ne xaalis banque fii waaye li léeg li léeg lii buñ créétal seen boppa problème this government their biggest problem is public relations and communication and the sooner the sooner they fix that the better yaa ma gën a xam lu si réew mi there is too much noise in this country the political temperature is too high honest effective clear communication pour saafaral góom bi nga xam ne loolu lañ am si dëkk bi nekkuñ si euh, waxtu caaxaan nekkuñ si période yi waxantu nekkuñ si période yi naxante parce que Gambien si dañ eew passé nañ si euh, state bi nga xam ne di nga leen selmal ah let the euh, government's communication team come up and talk to people ñoom sax ñoom leen ñoo leen war a toppa sax léegi pour ngeen jox leen di space to talk to people because they are losing the communication battle this government is losing the public relations and it's nobody's fault but those in charge of those responsibilities in this current government. Mr. Sabali uh, suñ xoolee ki nga xamante ne moom mooy director of press and public relations. yes uh, <coughs> press conference bi nga xamante ne wax nañ ko rafet nañ jot ne dégg nga ko. ban la si mu fu mu waxee ne uh, lu ëpp si koppar bu diggee. fu mu nekk nii mu ngi si biir. ana xaalis bi. Euh, waaw léegi moo tax. ma ne some of nga xamante ne ñu ngi. ban development. Euh, ak ban evidence nga xam ne xaalis boobu foofu la jógee pour fund this development ban development moo fi xew. Euh, léegi nii li nga xamante ne moom mooy xam nga xaalis bi. wax nañu waaw xaalis bi ñëwul buñ naxante. xaalis bi suñ ñëwee sax dinañ ko yëg in terms of the exchange rate suñ exchange rate dafa gën a nasax ndax dafa gën a right now. a nasaxam. waaye nañ bàyyi waxi foyantu booy. parce que ma tuusee si damaa ñëw wax si loo xam ne dafa naxari so please nañ dem xaalis bi ñu ko fii man maa ko wax te du mus di ñëw fii in full measure man maa ko wax let's go. Ah, mu ne li nga xamante ne moom mooy COPPA bi. dafa mel ni ñëwagut ah, te du ñëw in full. du ñëw demut ki nga xamante ne moom moo wax loolu. waaw di ah, Mr Momodou Sabally. ñu continuer rek si kàllaama yi soose. bara ñoo xuusaat rek si beneen boor comme nga fo nu ñaamen dom mm-hmm. ni a jibe ni ya lon ko wolom ntol fangola gambia banko kan mamme baake e kodi kutole dada andum wo kolikoto ah, e eh, man kolikotoɗoɗa a koɗo e koɗola design le falin <laughs> eh, non kumo e koye ɗoto moƴaɗo men ɓe keete mi koye kolikotoɗeɗa sara kumo sitano yela kolikoto faya yete mantora mm. so a fo ekoye ye design le falin <laughs> ye falikole ke mi yalon ko wolom design wala karola awo ah, ase gambia makoye nole fankola karola ɓan a fo aten makoye non ko ka koɗo falin a fosuru a kogola men aka mum taɗa ko ye ela ko falin doron e woman fella fayla jata kendeyato so ñarandiroɗen ton ye koɗo ya ya ya deda ye wole faliŋ bari koɗo faŋo maŋ so ntela jeero to fella faala no banko la fanko to uh, ase makoyno men to domandin rong mbiyeŋa lonne ko koɗo yelemandi laalbi janne ma ko uh, sarakule morol kamen kede but men yalon ko koɗo ta ka ka copy wolɓe janne aɓe banko ɓe le to but uh, ni yela design falling ko nga fo nyame la central bank ye mem fo nye ko wala ko do ni security feature feature yo yo la fajele so nga yakaro soto ko counterfeit ase talano le nying uh, kiyanka jenda njawol men be marché ote kana kodo tay ka tafuy ka kela fani dalto o ka kodo fananta ka ka sembo tala juna so nga yakaro soto ko nyin kodo kodi do ye falindiro men keten ala ala mulungala and insecurity faith asa keno ñin kodi ɗo pour a aye fara wote tariyala nogo yakarole soto so konga men fota wona mbe sirale ngajiɓe fo wolem situation ri fo wonte because uh, kodi kutowolen so science men keno je wolen dron nga nga ngila kumota ko ye men fo ye wole ke nga yakar ko uh, maybe this one security features uh, durability uh, aɓe uh, uh, akkoɗo ñimɓe mbaɗa ko sotoɗa in, in, those dimensions uh, ni nga jiɓi fanan fankola karola mm-hmm. uh, mm ni a ah, jiiɓe mi yalon ko wolom masakunda min ɓe jan haytata no ah, ye ah, lahidi jamale ta bankol mi ko wole ɓe european countries to lahidol wo lahido koola amma me ga moye ko wolom directeur of press aya fo ko wo koɗo min yalon ko ye wole lahidol ye min ta wo koɗo a jama wol sign thing aɓe janne ga jele wala ga moyle ko aɓe janne fo sign thing itela kiskisorola karola yayo yewo jeñaɗiɗa bayringa jeɗa ko projet ndin mi yalon ko a masakunda ɓake kan a sako mi yalon ko wolon opa riva région tundoto nse men fo eno wokkuɗo euh, ye men fo ko wokkuɗo jama bi janne woman soto ko ɗoti jam naata ɓe urr projet ko lawmu china la projet kolti china hmm. chinese o wolle bulo jata sara kuloti chinese o te koɗoti kala ya dila ate kala bagasol bele samanan anara ɗo kuulal fanga ke samananne pour ye ɗo ku wake so wole ɓe wole ɓe you are r alhamdulillah almawo projet ko uh, alay barako ke jeya e pareji una because you are r mol solata wala le so woni ñim pledge man fen soto ñoola uh, pledge min 1.4 billion kabiri yakumo fo molɓe bulo kosila ɓe ɓendirudiro kele ɓe tantagol kosila ntel tata qtv sadio britola programme kaye ko ñin koɗo ye même fo abetina jang ananatina jang aɗum wala keta because koɗo ñin Uh, ni sango men tambita 2018 ni aji be grants men dunta gambia me yalon ko mako ko do ad wol be nyanta nala wol be nyanta kala nyin part of this uh, pledge leti instead of ay lafa 2018 na le and 2018 len national development plan implementation nyanta datila so on kam men fo wole man sakunda men be mako la sign wo man ke ka kumol fo me yalon ko be mol ne ne lale gosa mo le wo man ko imbetem bo men to men ko ita wolen ka ngañ hilla ñinela barin ma be soto barin ba katakane pour ñin kodo e na isaje mool français understanding soto ye si ye muña ye bula so nga men fo surwa kon ñin man sakundala problème ba walem tubawol ka fame public relations anin communication ini mool ka diya muña e buka information correcting di mool la a watola so walatna mool fanan people are very impatient some people are frustrated so la public Euh, moolu ye a miira kabiri ñiŋ faliŋo keta kodi million jamale fota jang nin sayo baro lota may koto wato na million ol fo ki am dol kan mira di following morning ide ide de bunjangol le soto le ay man kese ko ene ko ene ko ene ne airport wala nyame but nin ko dol aketa declaration de ko dol man na so ko walatin na nin mamma dol fama be keri moli amira ko dol be jamman sakunda moli akala nyotema adun te man la ko ketale so man sakunda membe mako elanko ye ñatili mool la enin journalisol ye diyamu futa ñomoye sonoya communication ay tara toña kan mool ye a men ɓe kering mool sila probléme understand e mool ye muña ye min parita pour ka muña bari ka si jang ka fo koye tubabole koɗo men promise a jama nata jante moɗu sabalin ko amanke toñati aman soto because na men foye sowa konto walen natarawo koɗo nata jang na exchange rate faga banko ñin fagoy a ñanta na exchange rate a ñanta a ñanta baraka lale bari mule be killing na exchange rate la kuwoto a ala barako le lafata fa ala barako talata le a barako boyitale so kodo le woto fo ye a le singa sare mbam ah atol la nga min moy wala wala kodol mi yalon koy be wala hakan ko ni project hol duku ando project juma because you are nga o fere mu channel channel ko di sambala nan jay nim baga so le nata ani doku lali na nata le so fo nga moy fanam president na ko mi yalon ko banjol ning bara iba ah mi yallon ko wolo masi kino wolo ba brigi la ye ye pila gelle lo dije folo ah sainten kis kisi ro le alama alama alay barako ke kisi kisi ro to fo fo brigi o se sota bi ko ngol bota badi bule so ni o ke tangal tano at least maybe se steno badi bule fan kana do ko la jam ngana ni mi yallon ko wolo ADP la karola amam me bake a ah, nga ko mi national development plan comme ya fanya mi eh. ah, stakeholders validate the NDP ah, ye kambe ngole ke ye meeting kaca ka jiiɓe ko mi yalon ko wolom national development plan ka mm-hmm. kesi kesi ka ya jiiɓe ko iɓa la tamandiriña kela ñaami mi yalon ko wolom 3 years ɗi 5 ten akam ko woleta 2019 2020 anin 2021 ite wo je ñaadile fo fanan se mi yalon ko wolom na économie mako en <laughs> so ete kuma jumale taayla o validation taw enen kumum kumale fentita jeeme yalon ka faa uh, toñaɓe ɗamin uh, min min safeta wolam uh, mi yalon ko wolam nde ndp ñin mhm. ah, bat kum attije mi yalon ko ni hen ndp fango jiiɓe e mhm. sa fala ko je walla yen ñin dole o yaaje wala oh, walatinanna alfaal bugal lanna e ka kon dol tubaw karandigol mo kalabante wallati so e tatale siita e alawansol tala e domor dimal bo domo hotaloto e seyta so this is it ndese men foye jawaranata ko tesito kese man bo jaɓato baabili man sanata toña toña yakata university karamugol lafitanol bar baabili man sala vision 2020 development blue blueprint aman succeed anta fola ko ok abota jana before 2020 so hana uh, try 2025 keja wo, wo vision ote succeed la because na karannal nka kuwol ke ñaami wala buka correct instead of na si nun na moolu ye kaca nga jiibe solata men na nga wo ken na planto nkata si officiol le kono hotelol to ngam fan soronje ngaji ɓe men ɓe kerin tubaboliya anin araboliya nga wottangake développement plan ni tata jang any alkalo o sefo ya ñininga mu neɓe national development plan dala fo ede kano tell you development plan di pour molle molle sa implement no so ko wolbitano ñaadile so national development plan nte kam men fo natante président baro advice la awa ñakasilañim mula e continue la mitinol la anila tamol ay key projects jiiɓe mais yalon ko aye implement natara man kamankunda aye tamawo ma fangola na ye sate men jeme a lon ko jiyoti je aye instruction di ala a la ñing ke a next week ni ma ke ngi bay fondinkewol ɓe solari maintenant aye because mansakunda ta be kela no a même fana ya expect ko mansakunda ɓe na probléme ɓe solve la iɓe siibol la bat aye ku kummal jiiɓe men yalon koye kumma yata mol ɓe solariŋala aya ñaaluwol kan ni wonte ñin so kol karannaal men mbasi ala ministre sel ibanenila min min wato sika pour ka fogo national development plan na impli ake jata e baba be be ning excuse le bina mr samali <coughs> e eh, woke fola ko dictator do fele because nin ko atelem president oti ay eh, tama e ta dulato ay di ko nyindo uh-huh. nyanta kelale a manke ay mo uh-huh. call uh-huh. ay wicho di la kay ko ndafta nyindo ye ke within this period of time yes ibe wo jela nyaadi wala nyaton kayadi that's called leadership any other thing is kante e bulu e buka fenkeno e ila, ila, ila sate orani kiyankoli wo alkal sifa a babaylala bare of course kamba bulu bare atele ministre tombo yes sowla nankare bay what's your problem with that ni ministre mi mbawa duku kaya bay what's the problem with that womante luwa tiñati luwa e sembo diyala de ha so n sohlata o leadership lala ñim ka ni mi mela ɗo ko ke ya bayi nin mawo ke toon banko ke kasara ningajiɓe ndp time frame uh, mi yalon ko wolon 2018 2021 uh, ye min eh, fuɗuje ah, a siyatale yes. uh, mi yalon wala nan ko yaka ɓeta kelano continue lat minin karola laahiɗol la karola laahiɗol min fota je sako min nanta kammuta ko feko fe ñanta banna 2021 yeah. Ah, bayri ningajiɓe constitutional review commission iko time frame ye min diyala iko 2021 bayri ga moyle mamme iko mi yalon ko wolon décembre ito iko ɓe safero ñim bannale bari ku jamane ɓe je mi yalon ko 2021 ƴeewo jeñaadi de mi yalon ko woli ɓe fodiri ngo 2018 21 21 la karola e jata ken yala karola karaŋo la karola kuudol bi je la karola nte daal national development plan naatara ye forty percent implement keme wo keme siidula tanna naatara yo implement dron e eh, gambia ɓe falinna baake le bari wole faŋata sotola diyamu jama leŋ meeting jama tama jama munene jama ni ba reed la estimate li jelle a uh, tatti fangana tatti fanga siyatala ita implement lano am um, tali ntala fo e don't ask me about this thing again batu fo 2020 len commandi ko den kan si igani mun ko kacha uh, ganna sayin uh, mi yalon ko wala mi yalon ko wolon karangola karola bayri to be ngalon ko karangole be mi yalon ko wolon economy wala ba sen ben yala bayri ko karangole ka londo bi mm-hmm. sayin be itala jero ko karangola karola abeta kan nyaade karango abe dinkira jawbale karango uh, mbe diyaŋula karaŋola kuwo le nag i become emotional because nte ŋa loŋ ne ko nte keta kuuti kuwo kuuti ñiŋ duniyaa kono bii karaŋo le sembentuya ala la deemaaro kaŋ faŋo ke bari meŋ keta ntolla ntolla dindi yambe karaŋo keta waatoo meŋ na waatoo leŋ karaŋo beteyaata a barakata ñiŋ bankoo kaŋ right now karaŋo tiñaata le uh, education policy man beteya meŋ be policy implement kaŋ i maŋ ŋaniya kendoo soto banko doolu maŋ ŋaniya kendoo soto banko ye wo le la problème ti doolu i maŋ londoo so this is the problem nkammem for always ya jame sa konyawonya ala success areas karango uh, eh, jim banko kan ala policy to karango bijele because i ka fo nyamen tubabu kan to democratization of education waɗo ni fa manque ministre ti a manque businessman bati wara influential policier sa university ete o jeti assero fango ete wole soto ala sago ka je bara naxa university yelantorona access soto na life change ta na family la siñol men yalon ko dindiŋol le ben koto yen jiibe a ah, sabali tata université a karanta e dow ku kendo soton fanan sa ken ole social transformation bari kamen ke woyaya jamme faŋo jannaɓe bola jang ah, a nana siitale farafeña e fatula min fayi aya jalayi ko sa students ol ñinin ka question le ma ansano ah, kay ko karaŋo dala a bara ko talatal de so ntenga men miranu ni ñim mansa kunda naata aɗum baro damante ko volition o beelem the first baro e promission men to overhaul education ka kana karango mbake kan ñamen karandiro ka falin completely barima ok education minister basic education minister ntelaje television oto wolum kijolen fara akonna karango education policy kuwol be bañ avec beteyarinde so aman jari nga fen falin so manana yajame boldi jam natayte ko men tuja wol be beteyarinne so kuwoyen dini bake so uh, men keta wask akamunta ko official ngam mol je kilin ki de la resolve so ngala a ko nyinan a wala wala fonke ta kasaro te maybe wala tin ibuka koronta pour ko ibuka fi mol ya long aggregate result e ka karambin dantan ne tarro men result beti ate o findi ndi mol yebulo ko a wala nan defa mbuka mo congratulate worst result because ngalo ne ko tan dam mala beti ata tan kononto be kasaro len so nyin wask abrim baronata tinga first year or second year a uh, press conference bal mi ata kenon sa malo mun adna yabula bari nyanta akumandila ni ekata <laughs> so tabri ajinin ta ta was result is bad so president ko ye ako ako nyinanta wala fisiata jar sar ko yo ko en kijo fara ko fisiabe dame <laughs> kende ato and, and this is serious and i said nyimanke faya kuti fang because ntamen fo like ntinga jele karamoy opportunity men dintela munat nan dokol ndingol wolɓe karaŋo sotola wolma ñanna karaŋo sotola mi alon ko at least the same quality namam betenna quality of karaŋo te sonko at that point point baro ala ministre sol ala advice sol iba nene kanne aɗum moɗole kumo ka ko moɗole baro baro mu pasinol a lata wala ko pasinol bi jeeri aye bondi jeeyi because ñantamin fola baro e at that point wala luk ñimmam beteya ngakkuwol because at that point itete baro blame lano karan systéme o mi alan ko sanjitta lula bi jang ni yena sanji fula so tol ñantamenkele they should just be honest and know look ñim problème ole nga tara janne ma solve no baral mbe nga na nga kafu nga solve so instead of furkañim problème o solve barara juuf mam malu aman sila aka foka ɓe gtti ay lettala ayake university te is a political move instead of koye kodi jamata kata tiña gtti ay because tiñaro leng gtti ay ate ate beteyalano as a university aman beteya as a vocational institution ate beteyalano as a instead of kaw kodo tata sambata laboratory sol deda ka ticha kendo di na, na, na, na especially na santon kol ke la karamul social and economic equality sa so, sotono ni banko kan e koy kana jititi ay leta ka ke university ka kodo pakka sala because of politico because alafta le pour 2020 sa ko ni man sakunda fana university ko sama na wo kodo ya sama university of gambia eta university of the What will I see that? Malakaranku say, Nkumandi another a Karango discourse. No, I'm telling I'm not joking about this because I haven't I confront Karanku. Karango kuwala jan, nte buka buka charan karang kuwala. Kadri IP asiri kulia instigate pray alpha kan by Charles Jao, nte le tata ya nka ko nga politiko bondi karang kona. Nka ko ni aje nte kete la secretary general karang kendo nga wala soto. Because wato APRC no bondi bije ko alpha kan buka alfakan mo mo mo mo mo tilindiŋo le niŋ diŋo maŋ paasa naata i mu i bota kaniŋ la laate i diŋo taa la school i lafita bala ntel taata na ye a jame confront nka ye kana kana kana tuluŋ karankuwo la this is one of your successes so nga politiko bondi je wol na ye jame order di ko moom moy alpha kan ma ko ma ya ko tanke so let's just be honest nga politiko bondi karan kan ani man fenke no na fondin quality education ma ite leen maa de karam stop we will give you ah, ñu xuus si li nga xam ne moom mooy wàllum jàng bi moom si wàllum jànga mu inspire tamit ndaw yu bëri si li nga xamante ne moom mooy wàllum jànga ba tax na soo ko laalee si ah, jànga loolu tamit tamit boppam la tey nag dañ see dugg parce que bëggoon naa koo laajte tuuti rek pour mu junja si li nga xamante ne moom mooy ndax su euh, basic and secondary education bi su baaxut higher education dina baax waaye fu mu nekk nii ah, gis nañu moom puus na sax ba passé foofu léegi li ñoo def rek ah, si euh, li nga xamante ne moom mooy mujjanteeli waxtu yi lañ nekk waaye Mr Sabally ñu dellu si waat ba li nga xam ne moom mooy koom-koom dégg li nga xamante ne moom mooy eleven million euro yëpp project ah, mu ñëw fii nii dégg nañ lu bëri dem nañ bañ gis yëpp mu ngee sponsor façon sow lan moo si sa jàng comme ki nga xamante ne moom mooy économiste Euh, li nga xam ne moom mooy ndaw ñi suñ leen bëgg a yóbbu parce que dama dee joxe benn exemple ma ne soo demee réew yu mel ni Mali am nañ lu ñuy wax maison des jeunes place bi nga xamante ne ay ndaw ñoo fa nekk ñu tàggat place boobu noonu project yu mel ni ñoo ko assi waaye dañ build structure si bàyyi ko foofu ten years fifteen years after project bi place yooyu dina njëriñ ndaw ñi yow sa gis-gis yëpp bi ah naka nga ko gisee ak eleven million euros si Gambia bu bi waaw oh, yaa ngi isi beneen issue because fi ndaw tam yëpp yëfi foyantu la yëpp dañu yàpp because defuñ fi dara dañ ubbi bunta pour ñoom ñu lekk xaalis jëriñu njëriñuñ fi ndaw yi dara and it's very unfortunate te bu yëpp bi moo fees because yëfi ndaw yi la waaye project fii yëpp place yi lekkee kaay xaalis la da suñ benn kotoy tilibonka déggul olof waaye mu ne project mooy pour jeeku <laughs> non it's very sad dañ war a jooy waruñoo ree I am telling you jël millions of dollars si turi ba doole yi loo si njëkk def yëpp lan la ñuy fi njëkk a jël li ñu jënd si moto soo ko calculé moo daan twelve million dollars ay SUV Nissan yooyu lañ jënd génnee si essence boobu that twelve fifteen million dollars loolu ñaata ndaw la mun a dimbali in Kiang in Jaara dugal leen si business small scale fayal leen ñu dem jàngi vocational si loolu sax structures yu nga euh, wax li yëpp spend liñ dapaas si yëfi moto. ak fuel mun naa build a, a youth center maison des jeunes in Kia the most remote area in this country waaye ba pare gars yi ñu ne dañoo dimbali ndaw yi 47000 lañ dee jox ndaw yi right loolu musique vidéo sax munu koo defar ñun lan mooy suñ problème grant la grant mm-hmm. grant bi dañ koo compter as part of development assistance in this country so ëllëg e ak dañoo ne dimbale nañ Gambia 11 million gisuñ si dara fekk ñoom seen bokk bokk nañ si problème bi waaye suñ trade minister bi at the time Isatou Touré is our responsibility moo fa nekkoon dafay lu ma gën a naxari si dëkk yi mooy yëfi naafixa hypocrisie ay ndaw ñoo nekk yépp di dimbale gars yi si nonsense bi gars yi di def foofu jël suñ xaalis si turin ndaw yëpp rek tasaare ko pisir pasar li nga wax ay fashion show you know so man man yëpp musuma se ànd in the beginning te wax naa si in the media pour nguur gi xam li si nekk waaye nguur gi moom sometimes you wonder even if they follow the media and it's very important a very important feedback channel pour ñu déglu leen ñeen ñu xam lan mooy métiti nit ñi si dëkk bi soo gisee a lot of these youth agitations in this country is because of they don't have a connection with this government kan mooy youth minister bi the average young person in this country xamu ko Henry Gomez ak li ñu koo ŋaaña yëpp at least we felt his presence give the devil his due he connected with the young people the young people feel disenfranchised they feel a complete disconnect with this government te war nañ see def dara te yëpp bi moom dafa mel ñaawal ndaw yi fa a am unless nga bëgg a ma puus si because yëpp moom awma anything positive to say about them yëpp yëpp yabaate la Ah, waaw waaye ñu gis ah, tamit ah, yenn support yi nga xamante ne def nañ ko. fan fi nga xamante ne moom mooy di. fan Youth Chamber of commence Youth Chamber ñoo fa nekk. Youth Chamber of Commerce. trade fair naka ngay demee trade fair te amuloo looy jëndee ay bagages nga trade ko booy li yëfi caaxaan la booy. joxal ndaw yi enough money to invest in entrepreneurship waaye ngay def workshop pour jàngal nit business amut xaalis bu moo dem jëli bagage sax pour business ko. loolu lañ fi nekkee workshop jël a few young people identify leen yóbbu leen Europe ñi nga xam ne sax at least ñu ngi baaxle tuuti ñooñu lañ dee gën a dooleel dañoo gis benn waay yoo gis nga kaw su am na poultry farm fii mu ngi successful ba pare nga ñëw def ko sa billboard jox ko chicken change fayal ko mu dem feena nga dem def ko si gétu yi loolu moo si dee gën a naxari bi nga xam ne paako yi booy mbuuroo bota sax problème la nga jël billboard def ko fa ne waaw kii dafa tekki fii te mos naa ko wax booy tekki fii ma ne nañ waxante dëgga ndaw yi ñu ngee try war nañoo yokka waaye mënuñoo tekki fii su dee government bi implementuñ policies and programmes yi nga xam ne dinañ mun a empower Modou Sabally mun naa wax fii ne économiste la jàng na liggéey na central bank waaye because dañ ma ubbil university ñu jox ma opportunity how about the ghetto youths who are dropouts and it's none of their fault because our education system is broke mënuñoo create more vocational institutions Badara Diouf from yëpp jël xaalis boobu nga create more vocational institutions instead of yóbbu xaalis boobu da ngaa dem defi a political project called the University of Science and Technology. waaw Mr ñu gis unfortunately the euh, same project mu ngi train nit ñi and lu ma si dégg. lan la si métier. Mm-hmm. ñu ne six months euh, yow sa gis-gis. six months mun nga koo jàngal nit métier. et puis fayantu la media sax mënuloo koo train six months. nga xam ne pour toog wax la yëpp foyantu la. medium low country made in six ah, months. xam nga li ma nga xamante ne moom mooy brick laying oo lu mel ni li nga xamante ne moom mooy mécanical ah, ah, wax di Mr mm-hmm. nekk mbir mu waaye comme ni ko waxee mbiri koom-koom bi dañoo waxtaanee. Mr Sabally ñu dugg si li nga xam ne moom mooy bilateral fishing agreement bi diggante Gambia Sénégal diggante Gambia. interview pareegul ba tey lan la ñu mun a yóbbu si li nga xamante ne moom mooy wàllum suñu économie. gis nga. man dama dee wax always nguur gi dañ waroon a jàngee si Yaya Jammeh and unfortunately for them bu ñu ñëwee any policy bu Yaya Jammeh jël rek dañ ko dismiss that's one of the biggest mistakes on this government and it will it will haunt them up to the end of their administration because government is about continuity man wax ma ne Yaya waxul dafa fi bon am na yu bon ñu fi def te yooyu yëpp dañ ko war a teg waaye waroon nañoo seet policy sam yi nga xam ne day good ñu maintain leen waaye rata fishing agreement man ànduma si license bi ñu jox Chinese yi in Gunjur ànduma si ñu ngi yàqa suñ géej yi jën amatut si dëkk bi you know environment bi ñu ngi ko pollute I mean it's bad it's bad yaa dafa bañoon agreement boobu all along ku ko ko wax sa def dee waay sa ko te léegi laa gis the importance of taxawaayam si loolu dañ gis nga if we cannot make the Gambia a heaven suñ mënutee defar ay skyscrapers ak yooyu at least the natural xëj na ñun suñu wërsag nekku fa pour transform this country xale yi ñëw suñ fa ñëwee at least ñu fekk fa dara li nga xam ne dinañ ko mën a liggéeyee uh, réew mi dama dee déglu Jaliba nag suma stala am na benn woyam bu mu woy conservation mu misaalee fi environment mu ne min dama mu kalamaati like potin daal la naan jox sa morom waaw yow nga ne dangaa jël ndox bi sin daal bi yëpp ba pare nga xotti potin daal bi loolu mooy bilateral fishing agreement it's Euh, ñu ngi am 10 percent fees landing euh, li nga xam loolu si lu ñu wax. waaw and then dégg nañ président bi mu dem si fi nga xam ne moom mooy si néegi député euh, li nga xamante ne moom mooy noonu joxe am nañ si li nga xamante ne moom mooy 65 million ak lu teg wala li ko jege si li nga xamante ne moom mooy nu ngi ko waxee si National Assembly loolu ñu ngi ko amee si nga xamante ne moom mooy charges ñi nga xamante ne mataluñ sarta yi wala dañ ñëw nappas fi nga xam ne. 65 million la. Euh, si li nga xamante si ban si ban currency. dalasi. <laughs> ok carré <laughs> soo waxoon dollar sax at least na I'll be impressed ko sëñ na nañ mën a use pour dimbale suñu yuut si ah well suma if I can recall well waaye no big. non dara si la moo nekk juum non bul change juumuloo loolu la. man suma over optimistic rek. absolutely and then ah, ñu gis ne ñu ne loolu noonu ñu ngi ko amee si 10 percent fish landing bi ak tamit li nga xamante ne mooy waala bi nga xam ne moom mooy ñu dee nappa te matuñ ah, mataluñ sarta yi wala zone bu ñu foofu lañ nag war a nappee li nga xamante ne mooy nautical miles ah, am na ñi nga xam ne nine nautical miles a online optical miles charges yu ñu leen dee euh, yow sa gis-gis ndax koppar boobu mun naa euh, li nga xam ne mun na koo yokk si li nga xam ne moom mooy suñu natural resources. loolu dara. 65 million is nothing in Dallas it's completely nothing ba pare natural resource xaalis mënu koo replace nañ saama suñ natural resources yi di fish and other resources maa ngi dégg fi forest bu ñëw di reserve baaxut loolu gis nga loolu nekkul seen nguur gi nekkul seen digganteeg nit ñi rek de seen digganteeg yàlla la so nañ bàyyi suñ xel fu nekk nii nag dama wax be bëggatuma sorita si yeneen wax yi dama bëgg a tënka fii rek euh, environnement bi ñun ñoo ko bokka moomuñ ko dañ ko bokka ak génération yi nga xam ne juddoonguñ buñ fi bàyyi loo xam ne dañoo nekk suñ baameel yi sax malaaka di ñu caw because of jëf yu bon in terms of the environment it's it's it's very it's very dangerous Mr Sabally bara ñu laa bàyyi one more question ñu gis nga comment si si li nga xamante ne moom mooy uh, OIC bi uh, li nga xamante ne moom mooy support uh, wala nu ko mun ki ooyee koppar yi nga xamante ne moom mooy ñëw si réew mi parce que gis na ñoo nga ne si newspaper bi loolu boor la waaye ñun luñ dégg ñu ne support la suñ ne jàppandal nag ma ne boor la du support sixty three million dollars bi it's all loans lu si tegu loolu mooy grants so now you're talking of three billion dollars nga jël si bor for party because OIC party la celebration it's wrong it's not justified anywhere in the world suñ ko amoon as a grand I don't have a problem waaye jël loolu as bor as Sidiya Jatta would say in his drama bi mu def National Assembly because bu drama la and drama bu ko jar mu ne nitam yi ngeen naanee ndox bu xonxa yow nga ne ngaa change pipe ndox yi fii because of OIC ay gan yi ñëw mu ne loolu loolu xaste la ak saaga te ànd na moom si kàddu yooyu waruñoo jël loon pour OIC euh, te xam naa ne even suñ development partners si IMF ak yooyu duñ kontaan si loolu so you know it, it's just affaire si dafa bëri booy arama dem naan sama ataaya ma relax léegi <laughs> ah important thank you very much for that uh, because uh, suma mbokki Gambian si dëkk bi ñun ñoo ko bokka uh, jawara moomu ko jawara xam na loolu baa bi li mu ne one billion years léegi xam na ne moomu dëkk bi Barrow moo fi nekk moomut ko ñun ñëpp a bokk dëkk bi I know politics mu ngi fi and the political temperature is very high waaye kaaraange réew mi peace and security buñ ko caaxaane ok ñuy liggéey pour aar ñu muy police muy soldat muy euh, intelligence officers suñ brothers ak sisters lañ lu ñoo liggéey mooy pour aar ñu and they are not different from us lu ñoo sol rek la suñ ko simbee ngoon ñu ñoo ñoom ñoo dee toog ataay ñu ñoo dee toog reer so neñ leen jox seen cër ñu respect leen you know police yi nga xam ne some of them te bariwuñ jéggi nañ dayo si nu ñoo liggéeyee loolu liggéeyi authorities yi la Adama Barrow leen take steps to uh, create corrective mechanisms for excesses in law enforcement but other than that nañ respect suñu law enforcement officers yi and uh, yaaxa luwa kenn du ko jëlal kenn America is the biggest democracy in the world so yaaxeelu la yañ laa jël ñu tëj la su police yi suspecté ne li nga def àndut ak luwa am nañ raay pour arrest lan nañ bugg si dëkk bi do we want to destroy this country I mean nañ bàyyi suñ xel nguur bi mu ngi fi nguur gi dafaa dem xaw ma kañ la yàlla rek a xam waaye dina dem so suñ defee yee nay pour yaaxa réew war a divide country bi unnecessarily suñ fa jógee we inherit a mess ba pare ñu bañ nguur gi di leen criticize comme man nu ma leen a criticize they have every right to do that waaye buñ def tuba lu tubaab bi di ooyee subversion di instigate nit ñi pour ñu making nguur gi too undemocratic means is unacceptable anywhere in the world te su doon man may président Momodou Sabally kenn du ko xalaat <laughs> no Barrow is a nice guy let us give the guy his due waaye let's not abuse his leniency ba ma xam naa ne Barrow nekk du apply the law sax fully I know that because si nguur guñ jógee nit ñi dem tiitoon si di excesses of law enforcement nguur gi retract waaye dëkk bi amul loi si musiba la moo la la la moom mujjee even in America you do this and you break the law law enforcement goes goes after you nañ make sure ne rek ñu toppal luwaa bi lu mu wax ñu doxalee noonu waaye yëfi kaaraange réew bi daal am naa si tiitaange daal so especially ndaw yi nañ ànd ak daal ñu respect luwaa bi ñuy liggéeyal luwaa bi ñu respect reñ ma brother sister si tam police yi nañ def ndànk si kaw nit ñi buñ jéggi dawa si seen liggéey waaye daal li ma ñaax nit ñi yëfi peace and security suñ buggee wecci nguur gi nañ xaar ba élection ñoo ñu wecci ko man yëfi on democratic forceful change of power bokku si gis nañ luñ ñu fi jural suñ ko buggee defati nag xëy na this time am nga moo ñu sowee impasse bi dëkk di tàkkut xëy na this time ñu gis dana it's serious I think we should be fair to this government too. You can criticize them. Wait for election. Don't instigate people to to a forceful change Te man ànduma si. te ñu ko def sax suñ ko defee sax bi wéeti nguur gii pour on democratic movements man may nekk di nekk Halifa Sallah fii lay taxaw ma ne li ngeen def baax baaxul suñ la neexee ñu yóbbu ma mile two I was there before let's play by the rules let's play by the rules ah, ñu jox li nga xamante ne moom mooy ku nekk gëddam ah, ki nga xamante ne moom moo ko wax di Momodou Sabally ni ma ko dee waxee rek ah, ndaw la bi nga xamante ne ñu bëri la inspire ñu bëri ñoo ko dee xool mu nekk seetu ndaw yu bëri ah, lu tax ma ne mu nekk seetu ndaw yu bëri ah, parce que ah, mun naa ne ndaw ñi ñi nga xamante ne ñu ngi xool di ko déglu di ko dégga bañ ko jox li nga xamante ne moom mooy Gambia's Pen yu bëri la benn si man saa yu nekk dama ko dee wax bokk na si ñi nga xamante ne inspire nañ ma in 2013 jamono boobu nekkagutoon li nga xamante ne moom mooy secrétaire général euh, fële fi nga xamante ne moom mooy si euh, CRR si buñ dajee si nekkoon bi mu mayoon ma benn bug euh, ma jàng si gis si lu bëree bëree bëri tax ba ma ne ma dinaa gën a góorgóorlu si li nga xam ne moom mooy wàllum gestu ba tey ji ma war ko mun a dalal mu nekk suma gan kon Mr Sabally ñu jaajëfal la si loolu lu ndaw loo def Euh, tey moo ñu jural li nga xamante ne moom mooy toog fi ni di waxtaan euh, bokk naa si ñi nga xamante ne inspire nga leen si wàllum gestu ba tey ñu mun a bokk ak plateforme in 2013 fële ci fi nga xam ne moom mooy si CRR si Nekon bi in Bansan spécifiquement euh, nga joxe woon aw yu bëri nga mayoon ma benn book si conférence bi mu neexoon ma trop thank you very much ah, alhamdulillah ñu bokk sante sant yàlla macha allah tabarakallah <laughs> jërëjëf ah, kooku moo nekkoon suñ gani bés bi nii lañ ko bugg di defee rek diggante altine ba alxames ah, wala altine ba ajuma ñu asil leen ay gan ëllëg tamit nañ leen asil yeneen gan yi waxtaan ñu waxtaan ak ñoom si beneen waala ah, kon nag ñu jox leen dox daje ba ëllëg comme niñ ko dee defee rek fukki waxtu ñu gestu leen xibaar yi fukki waxtoo genn wàlla ñu asil leen gani bés bi si waxtaan bi Adja Binta ñu bàyyi la nga tàggatoo ala buratu waga la la mooy fi ñu sa kenya ete mu moke do ete bota bale go di wasan na le jena fu suma insha Allah ta di jaajëfal askan bi comme ni nga xam ne nga ñu ko dee defee rek ba ëllëg insha Allah ñu dalalaat beneen gan xoolaat beneen tamit waxtaan rek si li nga xamante ne moom la ñoo waxtaan si bés bi kon nag ñu jaajëfal leen rek wax leen ne ngeen jàpp ko fii nii rek Star TV leen tey gi seen baaraam yeneen interesting programmes ñu ngi ñëw si gën a gàttee rek kon nag bu leen gi seen baaraam bàyyi leen ko foofu noonu rek ñu jox leen ba daje ba ëllëg